Euh, Babacar Touré Kewelo ginnaaw bu ñu ko placé woon na sous mandat de dépôt euh, mujjee rek démb ñu joxe ab xibaar ne dafa daal di am bu malaise ba rek mujje ca l'hôpital principal bu Ndakaaru euh, bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ab avocat moo ko dal di xamle tey ñu doon sàkku ab liberté provisoire lu ni mel mujjee nañu ko rek daal di amal moom Babacar Touré Kewelo bàyyi nañu ko ci ab liberté provisoire niki tey mu ñibbi këram bu ñu fàttali moom Babacar Touré ko rek dal di def ginnaaw si loolu itam ay mbokkam génn nañu yéey yàbbi ci situation bi ne lenn waralu ko lu dul wàllum politique lu mën a xew kile di Babacar Touré euh, bu kéwalu ay avocat lañu doon sàkku am nañ ko euh, bàyyi nañu ko ni ki tey ba mu ñibbi euh, këram sous contrôle judiciaire ñu wax ci leneen mu di lu ñeel mbirum Ousmane Sonko ginnaaw bu ñu ko euh, placé woon sous contrôle judiciaire euh, moom njiitul Pastef di Ousmane Sonko nag daal dinay mel ni lu franchir euh, maanaam bët frontière bi utali ca Gambie yéy na ci yàbbi ana rek lan moo tax mu daal di génn Sénégal dem ci Gambie lay fàttali le doyen des juges Omar Maham Diallo que li tax rek muy génn ci biir réew mi utali ca Gambia c'est parce que dafa doon traversé ngi dem ca ci Ziguinchor waaye itam di koy fàttali rek ne ko lu ñeel mbirum instruction gi ba mu jeexee rek le contrôle judiciaire bi daal di jeex mu mel ni mu Ousmane Sonko dafa rek daal di dagg cordon bi nga xam te ne ni moom moo ko lënkale woon ak li nga xam ne ni moom moo di wàllum yoon ci sous contrôle judiciaire a fi ne nag dafa mel ni ku fippu ba tax na rek mu sol aw dàllam daal di jéggi bi les frontières utali ca réewum Gambie